jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen nag euh, jàmm ci seen euh, chaîne bi nga xam ne saa nekk rek yéen a ngi fi toppee la nga xam ne moo di xibaar ngañ dem ba Touré daan nay àddu jëm ci mbirum Ousmane euh, Sonko ginnaaw ndogal yi nga xam ne yoon daan na ko jël teg ci kawam moom Ousmane Sonko njiital Pastef ka nga xam ne moo di Maître Ngagne Demba Touré ñëpp ràññee ko lool ci réew mi di Sénégal daan nay mer ba futtu àddu jëm ci mbir mu ni mel di wax ne ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko nag la ñu teg ci kawam nekk na loo xam ne jaadu dugul benn yoon du dëgg du yoon que ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko nag amul benn loi boo xam ne rek moo ko tënk ba tax mënul bokk ci li nga xam ne rek moo di élection 2024 yi Ousmane Sonko moo nekk ca dëgg moo nekk ca yoon li ñu teg ci kawam nekk na loo xam ne jaaduwul benn yoon moom maître Ngagne Demba euh, Touré daan nay mer ba futt nag ci doxalin bi nga xam ne rek ñenn si ñi nga xam ne rek ñoo yëngu ci wàllu yoon ñu ngi koy doxalee ci mbirum Ousmane Sonko daal ma ngi koy naqarloo ko euh, ñaawlu moom ma nga xam ne rek moo di maître Ngagne Demba Touré moo xam ne yii la kàddu mer ba fottu ci euh, mbir mu ni mel ñu woyal xibaar yi àddu wax ci li nga xam ne rek moo di sonorisation bi nga xam ne jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi nag ñu di amal fu nekk nag ginnaaw li nga xam ne jamono ji nag ñu ngi ko moo di rek Sonko namm naa la Sonko namm naa la joojee nag jamono ji nag ma ngay woy di law ci réew mi Sénégal saa bu nekk rek ñuy nemmeeku la nga xam ne moo di ay sonorisation Sonko namm naa la képp koo xam ne da génn rek di wax leneen lu ko takku Ousmane Sonko rek ñu jamono ji nag daan nay nekk actualité jamono ji ci réew mi di Sénégal saa bu nekk rek ñu ngay gis ay ndaw rek yoo xam ne ñu ngay yuuxoo turu Ousmane Sonko ginnaaw bi nga ko jàppee nag daal di koy tëj ci biir kaso bi teewul benn yoon ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi nag di ko fàttaliku moom usmaan Ousmane Sonko njiital Pastef